Phoenix Money Transfer ñu anda ci and ak yeen ak yónneekaay xaalis bu gene ci Gambia mën nga jot xaalis fepp fi nga ne baye ko ba Wow, koyna te do ci am benn jafé jafé waaw mën nga jot baye ko ci sa ay mboka ak am di jama nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak adina wangal kep ak suñu kay xaliss bu maga bi nga xamne ne dafa wóor gaaw te fi ci bir Gambia Money Transfer ñu ci ta famo million jama wala li nyim pingu wata coronavirus musasa sotori ngansi andin amana nyim mukeleti wala nyim musuleti amay sibo nyoto mo wini jama fata findu banko kan wala li nyim sasa soto andin ay faale coronavirus man jaral soto bari fanan akibar bima mumunti ay pingu soto le askan askan mi génn leen ñu pengu jee fagar lu moo fa jooyaay mooy lu ñuy aar asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan malla la al oustaz Mouhamadul Amin Kane Al Mansouri maa ngi leen di massaw ci feebaru mbas bii nga xam ne wër na àdduna bi tëj na doomu aadama ñu koy wax coronavirus coronavirus ku ne xam na ne rey na doomu aadama yu bare bare bari ci àdduna bi féeg am na ku ko am rek yëgal ne kenn muccagul lu ciy pexe la ciy pexe mbokk moo di nga jóg gaaw léegi léegi bi nga déggee sama kàddu dem jëli vaccin bi comme vaccin am na nañu sant yàlla te vacciné wu dalalal sa xel nga dem jëli vaccin bi ndax nga aar sa bopp aar sa njaboot waye aar ñeneen ñi nga dëkk ak ñi ngay jëflante askan wi genn leen genn leen ñu pengu je fagar lu mo gan fa jooyaay mooy lu ñuy aar di nuyu àdduna wërngal këpp di la ñaanal tawfiq rawati na bi rew mi ak bi réew waaye di nuyu képp koo xamne rek yaangi baxoo di sétane li nga xamne moy mooy Gambian Talents TV ñoo lay ñaanal jamm ak fo mënta nek waaye di nuyu tamit gars yi nga xam ne ah, ñoo nekk biti réew ñoo leen di ndokkal di leen ñaanal jàmm ah, tey di juróom-ñaari fan ci weeru novembre atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn ah, di nuyu baax a baax gars yi nga xam ne ñoo yëngu ci ahlu lamb ñoo leen di nuyu baax di leen ñaanal tawfeex tey na ñoo ngi fi nga xam ne mooy stadium Bakau kan moo waral bis bi kan moo tax ñu daje muy Luc Nicolaï bu Gambia moo woote fi nga xam ne rek mooy diwaanu Bakau ay mbër yu mag a mag war a bëri fi nga xam ne nii mooy ci stadium bi mbokk yi lépp di leeral fi nga xam ne mooy Gambian Talents TV waaye di nuyu baax a baax sama caméraman muy Sagnang maa ngi koy ndokkel di ko ñaanal tawféex waaye di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi uh, ci Gambian Talents TV di fa liggéey ñoo ngi leen nga xam ne nekk ci diwaanu Santhiaba waaye di nuyu baax a baax gaa yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Colobane waa Turquie waa Belgique ñoom ñëpp maa ngi leen di ndokkel Argentine uh, ba Brésil maa ngi di nuyu waaye di nuyu tamit uh, waa Allemagne foofu ci diwaanu Germany nga xam ne ñooy groupe sopp Sénégambie maa ngi leen di baax a baax di leen ñaanal tawféex Ah, mbokk yi dégg ko gaa yaa ngi noonu ndeysaan eh, ñi nag ñooy waa Serekunda wala sax ñoo ànd ak eh, Lion Noir ah, ba tey ñu di nuyu baax a baax di leen ñaanal tawfeex a ah, yi làmb daal moo baaxoo nu nu a comme fekkee nañ ko dañuy ñaan di ko yàgg a fekkee ginnaaw ba nga xamee ne làmb ji maanaam tëjoon nañ ko waaye làmb ji ubbiwaan na fi nga xam ne nag mooy diwaanu Bakaw ci stadium bi mbokk yi lamb daal moo neex comme ni ma koy faral di waxee ku ne làmb neexul dañoo daan sa mbër wala sa mbër daanu loolu rek mooy tax làmb naqadi daw fekk tamit nga yobbu sa mbër sa mbër daal di daan seen doomu ndey musa jinne a nekk len ci li nga xamne rek moy mayg bi a di nuyu baax baax gaay yi a gars ko yoxu koy yóbbu ndeysaan maam yàlla ngi lay ñaan li nga jëm daan loolu la gaay ñaan ñi ne ndeysaan wallahi te muy deug wa wax len way lan ngeen di ñaan dana ko jël ay lu ngeen ñaan ma ne ñaan leen waay lan di ñaan kon dina ko jël ma ne wax leen waay wax leen ca kaw lan ngeen di ñaan ole lan ngeen di ñaan na leen amin waay ole lele ma ne waxal wa ni lamb jaa commencé mbër yaa ngi ñëw di bàkku benn par benn ma ne ko mbër yaa ngay bàkku benn par benn mbër yaa ngay ndeysaan nga xew ci stade bi stadium ba kaw kon gars yi départ nañu combat bu njëkk baa ngi doon commencé départ ndeysaan diggante bébé kaas fawa ak bëgg a dem diggante bébé kaas fawa ak bëgg a dem juróom benn waxtu jot ba teg juróom ñaari minute ndeysaan lépp di xew nga xam ne mooy stadium ba kaw délégation seen ndeyjoor bëgg a dem seen càmmooy bëgg a dem ndax dina dem moo xam waaye du ma xam bébé cash na nag bu ngeen ko déggee Cash-Power mooy li nga xam ne moo ngay jënd pour mën a am courant ndeysaan ndax tey courant dana am waaye ba tey tamit loolu moo ma jaaxal juróom-ñaari fan ci weeru novembre atum ñaari junne ñaar fukk ak benn di nuyu baax a baax képp xam ne rek yaa ngi bàyyi xel ahlu lamb rawatina waa sanc ba maa ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal taw féex waaye di nuyu baax a baax groupe sopp waaye képp koo xam ne yaa ngi baaxoo di seetaan Gambian Talents TV ñu ngi seen ndeyjoor bëgg dem seen càmmoy waa Colobane nuyu naa leen bu baax di leen ñaan tawfeex rawatina a Istanbul waa Argentine nuyu naa leen waaye duma fàtte waa Belgique waa Allemagne waa Paris maa ngi leen di ndokkel di nuyu gaa nga xam ne ñu nekk ci diwaanu Mali wallaay ndeysaan lamb baax góor la ndeysaan fa tabaarkàlla wallaay lamb baax nu mel ma ne ko lamb rek la man nga lamb daj man nga lamb do daj wallaay sama caméraman bi nee na ma dëgg la wala ko dëgg ndeysaan dëgg neexul dëgg ntaana neex ña ngay joxante loxo di nuyuwante kenn ku nekk jël nga sa loxo ndeyjoor wala sax sa loxo sëpp sa conc diggante bébé Cash Power ak bëgg dem jàppoo nañu jàppoo nañu waaye dara xewagul jàppoo nañu waaye dara xewagul lamb ji nag roof la ndax tembari dañoo naw ndeysaan combat yi ndaw yi ay roof lay doon ku man sa morom daan laa ilaha illallah jamono ji ñu toll Bébé Cash Power moo nekk seen bëgg dem seen ndeyjoor ndax bëgg dem day dem wala Bébé Cash Power day continuer jaay courant ndeysaan di nuyu képp boo xam ne yaa ngi seetaan lamb ñong lay ñaanal fan bu gudda wër wér ak seen doomu ndey Moussa Djiné di nuyu baax a baax waa Saalum waa Opa Saalum leen di nuyu di la ñaanal jamm waye xam ngeen ne di sama ma foot moy élection yi nga xam ne moo war xew fi ci réewum Gambia ndeysaan ci gën ci ñun yal ko jox ndam li te gaay nga xam ne ñooy jongante ñoo leen di ndokkel di leen ñaanal tawfeex ndeysaan tey nak mbeuri ndaw yaay bëre waye mo def mbeuri mag yi mbëri mag yi nga xam ne ñoo jëm di sama foot wallaay ndeysaan gaa yi war a sëgg bëre ndeysaan diggante Adama Baro Leya Ousseynou Dabo Insa Mbay Fall Khalifa Sall Mama Kanté ndeysaan ak Ibrahima Ibrahima Jamme xaw ma Ibrahima Jamme xaw ma naka Jamme waaye ñun daal bokk nañ ci ñi xam ne ñoo war a sëgg bu mag bi ndeysaan atum ñaari junne ñaar fukk ak benn lépp rek xëy fii mi may leen li làmb ji ndaw jila Lambu ju mag jangi ñew ñëw ndessan ndeysaan bébé Kaspawa ak bëgg dem bébé Kaspawa seen jor bëgg dem sen chamoy ndaysan di ko nuyu baax a baax Mbaye Babacar diwaanu Colobane Abdou Cissé sante ba koy ndokkel duñu fatte Papa Baye Fall mustapha sek maa ngi koy nuyu momitam diko ñaanal jamm hélas ndeysaan ñoom Aliou Sarr Cissé Tiranga job Tiranga wallahi ndeysaan nuyu na leen Pam do manqué ndokel moom itam di ñaanal tawfiq di nuyu baax a baax Babacar Samba sek nuyu na leen babakar sek lay sek ci rewum Turki waye duma faté Matar Sarr Mamadou Makhtar sar nek ci diwanu Allemagne mi yaasa diwanu diwaanu Samba yoro nuyu na ko manan ko yoro ñamba adini ah, nuyu baax a baax tafa artiste ñom ñep ñi ngi baye xel li nga xamne moy Gambian TV waye Frank lay ci groupe sopp Sénégambia ndaysan Keba Diop maa ngi koy nuyu moom itam di nuyu Omar Cissé Ousmane Cissé moom nuyu naa ko ñaanal ko jamm lan mo xew lan mo xew diggante Bébé Cash ak bëgg dem gaay dafa melni ndeysaan posa bi moo jeex muy première mi-temps bi moo jeex ndam demagul ndam dikkagul xam nga gars yi dañuy faral di ndam demul ndam dikkul waaye da ndam demagul ndam dikkagul comme làmb ji jeexagul wallaay ndeysaan diggante bëgg dem ak Peri Cash Power diggante dem ak Peri Cash foosaa bi jeex na waaye gars yi defuñu dara ndaxte mbëri nan mbëri ndaw lañu ndaysan gars bu yegge ci li nga xamne moy scientist combat bi ku nekk di wax waaye bu ñewé ci geew bi dafa melni seen xam-xam day reer man neena len ci jaxal jox len nako ndaysan ndeysaan Paa ko ñu ci diwan siatul man koy ndokkel diko ñaanal jamm wo wa na len ci geew bi bebe galla ndeysaan bébé cash ak bëgg a dem ba tey noy char waa kay maam jibi maam jibi ñoo ngi koy ndokkel bébé bëgga dem seen càmmooy ndaysan digenté bébé kaas bawo ak bëgg dem jappo wat nañu ndaysan bébé kaas bawo ma leen jox gënaaw ndaysan bébé kaas bawo ma leen jox jor bëgg dem sen chamoy juroom benn waxtu jot ba tek fukki minute ak juroom benn dafa melni ni gum nañu juroom ñaari minute suma jumul dëgg ëpp nako ah ñom kay dama gum na sax lëpp fukki minute walaay ndeysaan wax juum mënu saa ñàkk waaye juum du wakal ndeysaan ma di ci sama koy nuyu diko ñaanal taw fi Omar Diop nuyu nako baye bàyyi saliw Mata job man ngi koy ndokkel diko ñaanal taw feex kooku séeré ami waaye di nuyu sama bop man musa jine walaay ndeysaan Seri Fane Mbaye ak Babi Ulay baye Fatima Roqi ak baye Mama ndeysaan wala Njaay jay ne lu way fekke neexul lu fekke wul neexul mané ko na fekk nga tal ko rek olof njaay nee na lu waay fekkewul neexul ma ne ko na fekk nga tal ko yenn nga fekke te tal kon rek am solo ndaysan ndaysan digante bébé kaas pawa ak bëgg dem waye mbeure dafa mel sonnagum <laughs> Rangga Jagin. Rangga Jagin. jum tegat la lawaran don ba fe cekat. Waye ma ñew téye maay bi dama jum. Ndaysan. Ndax li limay wax dara sax ma ci sama sama xel mi bang ci fecc. Bébé Kass Fawa ak bëgg dem gaay dañu min dañu sonu. Jamono ji ne ku fossé am dara si ñom ñaar ñom ñaar ñepp a ndaysan ñom ñaar ñepp a sonn bébé kaas ak Body daa mel ni jeex dafa melni jeexna jeex na mu ngoog bëgg dem daan na bébé kaas bëgg dem daan na bébé kaas bëgg dem dem na bëgg dem mujjee naa dem mbokk yi combat bu njëkk baa ngi noonu bëgg dem nag wax na dëgg ndax Bébé Casbah waxoon na ko ne ko yow doo dem bëgg dem na ko man damay dem taxaw maa jog Bébé Casbah nag dañ koo daan mu daanu yësi ndeysaan <laughs> mbër bu daanoo jaaxle wallaay ndeysaan la muy xalaat mooy la mu doon wax balaa combat moo tax avant combat après combat français qui parle ça il faut regarder ndeysaan après combat et avant combat il faut aujourd'hui tu parles français hein oui oui ça. なるほど。 diggante Scorpion ak tiati mam gor gars départ nañu waye dafa melni ni combat bi naru yag bi nak mo ñaarale combat bi la ilaha illallah Scorpion ak tiati mam gor Scorpion ak tiati mam gor <laughs> Scorpion dan na tiati mam la la ilaha illallah la ilaha illallah waye ndawlu lu gaaw Scorpion dan na tiati mam gor la ilaha illallah La ilaha illallah. <laughs> Sayang. Sayang kay. Sayang top ma. Sayang ñewal. La ilaha illallah. Sayang dikkal. La ilaha illallah. <laughs> Waaye bi combat gaaw. Gaa yi lii moo gaaw. Gaa yi lii moo gaaw. Gaa yi lii moo gaaw. Waaye gaa yi lii moo gaaw. Gaa yi lii moo in wagau eh lai lai la la lai lai la la lai lai la la lai lai la la sëñ nii nañ la waaye ndeysaan waaye ndeysaan taxawal Wah mana fay bu Wah waaw sant yàlla rek sant yàlla damaa liggéey combat bi billaay wallaay waaw loolu la rek ñu ngi sant yàlla bu baax yàlla moo ñu may nag waaye non man damaa e mën a bëre ba pare maa ngi ñaan ñëpp ñu tàllal maa ngi tàllal ñëpp loxo ñu ñaanal la est-ce na di mun minute ba sant yàlla rek alhamdulilah est-ce

non bàyyi rek am na ñu nekk sama kan gannaaw rek ba ma nekk si gannaaw ah, voilà voilà min ma jox suma mën a moo bëra gaay ñan nga bëgg ma doon ñu ma ñaar rek ba ma baba ni rek ñu ne ah. naan ku ñaam fi nga jëm rek ku ñëpp tubli rek nga léegi nañ yoot nii rek dama gàtt. waaw yàlla baax na. bi ngeen ne ceex waa ji xam nga ne yaa ko ëpp doole. billaay buñ ne buñ gum tey xam naa ne maa ko ëpp doole. coow li bëri woon na ne ñu bëri tiitoon nañ. waaw loolu la rek. mais yow ñoo nga géej gis nga man lu ma des. combat bi nii amul suma combat bu nga xam ne lu ma jaralee bii daf ma ko jaral. tey benn scorpion laa waaw sant yàlla rek bu baax. boo dëggal sa bopp barke Ba. Ndeysaan mbokk yi lamba baaxoon nu mel ñaareelu combat bi jàll na diggante scorpion la woon ak caati maam góor Ndeysaan ma ne ko Ndeysaan kooku mooy wëlum. gaay yaa ci digg géew bi digante volume ak digal fall ñoo wara jakarlo juroom ben waxtu jot ba tek panel simili ak juroom ben bii mo ñetteelu combat bi wulum ak digal fall wulum nak day konne yokku wala digal fall day sax ci digal wala <laughs> jarna laaj mbërum day yokku wala ndigal faay la jëfee ndigal ndeysaan lépp di leer fi nga xamne moy Gambian TV sen doomu ndey musa Ibrahima Sanyang nekk lan ci walum caméra bi way di nuyu baxa ba baax top sene gambe rawatina na gaay nga xamne ne ñoo nekk ci réewum dakar Njaay ak ñu nekk fi ci biir mi ño leen di ndottal di leen ñaanal jamm Olof Njaay ne cin bu re neex su baxee mané ko lay man na bax neex man na kañ neex waaye bu soté man na ëpp xorom baawu manké ta ñaar bu si baaxatul wala neex ga du ñew wolum nak ndaysan amna confiance confiance nag bu ngeen ko déggé moy amna yaakar wolum amna yaakar ndigal fal ma ngay bacc baccal marché ba dor nako ko nako ci ko gox yëpp dal di koy tak ci ndigam doran na biri na demale ci ndigam lamb dal lu ngay gis waye wolum dal dama noppé yag na ndessane bëgg bay ma ngoy ko bëgg ku baax ñong koy ni di ko ñaanal jamm ki nga bëgg jara bëgg ku ko bëggul perte nga Youssou Ndour nee na na guddi gi avancé rek yaram yi gën di tàng waaye nu muy gën di guddee gaa yi gën di bàkku di gën a sàjji lig Nicolas ci mim réew kenn du ko fàtte lig Nicolas bu Gambia ci mim réew kenn du ko fàtte ndeysaan lamba baaxoo nu nu mel ma ko lamba baaxoo nu mel jurom ñaari fan ci november novembre atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn jurom ben waxtu jot ba teg fanweer si minute ak jurom ñett lamb di lamb man nga lamb dekk man nga lamb do dekk ndaysan ku ne lamb neexul dañu daan sa mbeur ku ne lamb neena sa mbeur da daan ku ne lamb neex da nga ñew sa ca ci dara fekku ci bu boobaa lamb day neex ak yow <laughs> ndeysaan ñàkk doole rek moo ma tere bëree waaye ak maa bëgg a bëree waaye dama amul doole ndeysaan waaye du ma duggee ci géew bi su ma duggee ci géew bi njaboot gi rek lay xalaat xam naa ne moo tax su ma doon bëree koy gaaw a daanu lay doon ndax boo nekkee ci géew bi sax xel mi yëpp ci làmb ji la war a nekk waaye nekk ci géew bi di xalaat ay jabar ak i doom ah waaye ndeysaan noo def ñu daan la. ndaysan wolum ak ndigal fal wolum sen càmmooy ndigal faal seen ndeyjoor wolum sen càmmooy ndigal faal sen ndeyjoor ndeysaan gaa ngi bakku mbër yaa dugg ndaysan bima ñettel combat bi lamba di lambu li yëpp corona moo ñu ko xañoon ku moo xuma la corona yàlla nga dem jox ñi gannaaw ñi des <coughs> mënul ñàkk ndax dama soj kullu min nante daay ma sinaat min kulli carrément kullu min fooqati mooqati yomal fayin tayin Modou Mbaye mu sëñ Pallu maa ngi koy nuyu ca diwaanu Turki Ndeysaan Modou Mbaye mu sëñ Fallou ca Turki maa koy ndokkel di ko ñaanal jàmm Ndeysaan diggante wolum ak ndigal <laughs> wolum cokkaas na wolum seen càmmooy ndigal faal seen ndeyjoor <laughs> la ilaha illallah la ilaha illallah mbeng picc mu saxul dungu la koy tere naaw mbeng jeex na combat ba jeex na ndigal daan na ko ndigal daan na wulum ndigal daan na wulum la ilaha illallah ndigal daan na wulum waaye yow combat yi naa gaaw di lii de mooy neexal làmb ma ne ko lii mooy neexal làmb teel a bëre teel a ñibbi Ibrahima Sagnang Ibrahima Sagnang faaw ñu dem teel a bëree teel a ñibbi lii la gaay naan teel a dugg marché teel a taxal teel a lijjantiku guddee dugg marché guddee taxal wàññi nelaw ba ñëw ñu dem ndeysaan dëgg teel a bëree teel a ñeeng teel a dem ñibbi teel a daan teel a dem ñibbi teel a bëree daan teel a dem teel a bëree teel a daan teel a dem li nag moo noppal caméraman noppal journaliste noppal gars yi noppal sécurité yi noppal ñëpp waay <laughs> ndigal waay jëfee ndigal bàyyi tere dooree bàyyi faal ndigal waay

non lamb la rek billahi man taalibe laa baay baal laa comme moom da nga ko naan jéemalum macha allah ndeysaan ak sama gaay di leen sant bu baax lu balum def nii lan la yokku ci yow en tant que adversaire nga bëre ak moom nga daan ko bu ñëwaat dina félicité waaw xam nga làmb noonu la parce que tey jii bu doon man la tam noonu lay demee parce que bi Tamba taxawee ba léegi yar ak teegin lañ wanante ba fii kon nii rek la mun a demee ndeysaan ñëwaat ci daan bi waaw sant yàlla di sant di ndigal ndigal ndigal ndigal ndigal ndigal dafa da ngaa ndigal wala da ngaa tere waaw dañoo jëfee ndigal incha allah doole Baye Fall ndigal waaw ndigal ana ñu ànd ak ndigal ana ñu ànd ak ndigal <laughs> diggante Ama ak Docteur ci biir géew bi juróom-benn waxtu jot ba teg juróom fukki minutes ak juróom-benn juróom-ñaari fan ci weeru novembre atum ñaari junne ak ñaar fukk benn Ama seen ndeyjoor Docteur seen càmmooy ñeenteelu combat baa ngi noonu. ama seen ndeyjoor docteur seen càmmoy wuure war dem na këng waxe mag dem dañ taali jël mën naa am wala day niil ndeysaan loolu yàlla xam waaye du man ama ngi noonu yëkkati loxoom ama bu ke sëriñ mbooloo diggante ama ak docteur ndaysan ndokte yak na nen la ilaha illallah ndaysan ama day jor bakta sen tamoy ndaysan lamb bu tolo fi yaram day daw lamb bu tolloo fii supporter day tit lamb bu tolo fi ku andi mbar jaaxle lamb bu tolloo fii ku far da ngay tit ndeysaan diggante ñaari mbëri yi seeni supporter ak seeni sëriñ ndeysaan waaye diggante ñaari mbëri kenn ku nekk ngay xalaat suma ma daanoo lan lay wax xanaa soo daanoo rek xam ne làmb baaxoo nu mel a groupe sopp gambia ndeysaan diggante docteur ak ama dëgg diggante docteur ak ama ba tey dara xewagul ama mu ngi kabar waaye wàcceegul ay loxoom ba tey jamono ji docteur moo ñu jox ginnaaw docteur nag xanaa mooy fajkat <laughs> ndeysaan diggante docteur ak ama yéen a ngi jàkkaarloog ama docteur moo ñu jox ginnaaw lamba di lamb waaye lamba baaxoo nu mel ndeysaan bu lamba tolloo fi rek damay xalaat yàgg ndeysaan 1996 1996 jamono yu ma daan indi butéel di fecc ak moom ndeysaan diggante Kër ak jaariñ diggante Kër ak njaaw diggante Kër ak pàncang diggante Kër ak ñaani waaye diggante Kër ak baati ndeysaan combat bi nar naa yàgg wala nar naa gaaw lu xew daal dara demagul. gaay ñi ngi cokkaasante waye ken dooragul Ama ak docteur ndeysaan bu démb don tay damay nek mbeur bu démb don tay damay bëree bu démb don tay ma ngi ci bir géew bi jamono ji ñu toll way alon Njaay dafa am baat bo xam suko su rek dëgg la wacc ma <laughs> koku da ngay bare ko mané ko lay wax nga dëgg <laughs> wàcc ma daan naa la wóorul ndeysaan wàcc ma daan la wóorul mbaalin jàmme maa ngi koy nuyu ndeysaan maa ngi fi nga xam ne mooy stadium ba kaw maa ngi koy ndokkeel baax di ko ñaan taw feex képp kuy seetaan Gambian Talents TV lamba baaxoon nu mel diggante ama ak docteur mbaa ren bu nga jàpp ko foofu mën xam li ci làmb ji wallaay diggante Ama Bukke Sëriñ ak Docteur waye ndam demul ndam dikul, wa ne leen ci géew bi té gaay bëré wuñu ndaysan Ama seen jor, Docteur sen chamoy Ama seen jor, Docteur sen chamoy mba leen coupé yaa ngi yàq sama liggéey <laughs> ndaysan mba leen nuyu di ñaanal jamm ci diwaanu sànce ba kokoy borom ginaar yu neexi ndeysaan diggante ama diggante ama ak docta ama nag waaw ama rokas na ginnaaw ba mu taxawee ama jiital tànku càmmooy docta jiital tànku ndeyjoor ama tànku càmmooy la jiital docta jiital tànku ndeyjoor man bu laa mu tolloo damay lox làmb bu tolloo fii damay korkori waaye làmb bu tolloo damay tiit waaye làmb bu tolloo damay jaaxle ndeysaan ndeysaan faaw ma jël commentaire wallaay ndeysaan waaw kooku de Moussa Djinné la ma ko daan wax rek sikkim waaw jekk sikkim dañuy yar sikkim waaw ah, noonu la de combat baa ngi ci digg géew bi alaaji man bay diggante docteur ak ama ama fare ñu ndey joor docteur fare ñu càmmoñ ndeysaan koo koy bëgg baay ndeysaan diggante ama ak docteur diggante ama ak docteur diggante ama ak docteur gaa yi jàppante nañu gaa yi jàppante nañu diggante Ama ak Docta Docta ngi dóor Ama ngi sëriñ Docta amna ndam ci kawam amanat ni mu ñëwee bu féké seetaan ko làmb nga dag nan tay andi lo ne jar na am yakar ndaysan ndaysan ndaysan ndaysan ama Dokter Amna ndam ci kaw ama ndaysan fala ngi non diko jeli ama bu danan day danu way danu na danu wan na ndeysaan ama danu na yesi oh ndaysan lambu file la metti lamb mete, la metti ndaysan lamb fi la metti Ibrahima sañan xolal lii lamb bu tollu fi lam day daw ndaysan wa groupe Sopp Sénégambia sañan nañ dem ya Sagnang nañ dem ca kaw jëli bàkk ya jàll yaay pi xool la fa ne ndax mënul ñàkk nga oh. eh, rek tey bàyyi ma nous toog fii rek ma toog yaay fii daal. waaw fay bi nous a seer. wala dina may man manager la dina may ticket. man manager la. manager nous manager tal ni nous maa yor ñoom nous ak Félix Balla nous maa yor manager nous yor mbër yooyu. nous gisee laa mi nous neex rek. neex na trop wax dëgg nous kontaan naa ndax dafa bëri woon coow nous yi ñu dañ ko war a yóbbu nous West ñu ne nañ ko indi stadium nous ah xam nga nous ma gisee làmb ji mooy neex na nous promoteur bi dafa gëm boppam waaw ah, te muy dëgg loolu mooy yoon nit sooy def dara da nga ko war a gëm da nga ko war a gëm fulul ku ñëw fekk si la fa waaw li am nii tey dafa gëm boppam rek su toppoo waxi nit ñi du ko andi fii waaw yow tur bi naka la man Aliou Sarr bu tal ni mbooloo Aliou Sarr waaw ana yaa Aliou Sarr bu Sénégal <laughs> dañ laa koppi nga ñëw <laughs> mën naa nekk daal loolu si xalaara loolu la jërëjëf Sagnang Sagnang kii mooy roi de Salen kii mooy roi de Salen kii moo war a kii moo war dem senegal daan mursi si Edouard ñu ngi lay nuyu maa lay fay bu baax. mbaa yaa am di julli ci yonent bi rek di gërëm sama ñaari waajur di gërëm waa axu làmb di ñaanal sama sëriñ yal na xare ko àjjana maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. sunu jamono ji ñu toll axlu làmb yëpp ñoo ngi sa gëna waxo na la ko neena la dañuy far ba sagar xey ñoo yow ba senegal ñu dem daan nit. nooy waajalee. wala noo waajal ba pare sax. waaw ñu sant yàlla rek. nga xam nga làmb moom ah, bis bu ñëw rek day indi beneen bis loo gis rek dañ koy waajal ñu ci kawam ñu ngi def li ñu war ñu sant ci yàlla bu wér nag ànd ak suñuy bokk teg si di góorgóorlu rek di wax ne waaw koom la boo xam ne Sénégal dafa weddi Gàmbi ci lan mooy ni làmb ji yàqoo woon ñu bëri gëmuñu ko li ñu wax mooy warul mën a nekk. ñu tëggaat ko ñoom ñu ne mën na nekk ndax laamu ji day nekk li may wax nag man mooy drapeau Gambie laay réew bi du xoyantaan kese mooy dem na ñëpp ñëw ma gis seen image suma gannaaw arbitre foofu suma diggante bàyyi ma njoon ay minutes yi ñëw ñu rek la ko ñibbi ndax bokkul sax ci loo xam ne nekk na lu ñu jaaxal déedéet gëmuñu ne lu ñu jaaxal la ñu lu ñuy xalaat rek mooy na askan wi nangu na askan wi bëgg na askan wi bëgg yóbbu kanamu Gambia ci beneen kanam ndax tey ñun ñu dem Sénégal daan Baye Mandione loolu kanamu làmbu Gambia la beneen kanam te dañ ne tuumaal xam ne dañ ko war a génnee beneen bi nag maa ngi woo ñëpp di woo journaliste ak promoteur ñëpp laay ñu ñëw ci combat bi ci journaliste suma mbokki mbëri ñëpp maa ngi ñu ñëw jàpp ci làmb ji ndax làmb moo toll foo xam ne tey ah am na fu muy yegg dafa am lu muy laaj làmb jooju na daa toll foofu laaj na lépp léegi comme ñun dañuy dem pour euh, Sénégambia ndax lamb ji Sénégambia la xoyantaan bàyyi ma njoon ñun war nañu gis suñ bopp gis suñ drapeau gis suñuy nit gis suñuy autorité pour ñu ñëw jàppale ñu dooleel ñu li ci des nag ndogalu suñu borom la ñu ngi ciy liggéey bu baax moy duñu simé ko duñu rus suñu bëree duñu rus bu ak dogal bu soobé yalla yalla yalla matal lepp may ni ndam ngeen man ni déglu fële déglu ñu fi di barke alquran koy ndax japp nga dem mbër yi manam seen xol yépp jox nañ la ko pour nga dem daan ñëpp ndax lool moy li war ah am nga xol dafa jafé ci doomu aadama nit mën na wax nu mu melul wala daal li ma gën soxla man ci aduna moy même bu ñuy wax lu ñu def sax nañ nañ ko wax wax joxe image image rek moo am solo ci doomu aadama xol li ci des mbiru sunu borom la waaye bët bu set nga gis ku wax lu mu lu wax lu mu mel dëgg la waaye làmb moo toll foo xam ne Gambien na ñoo war a boole xol yi bokk ndey ak baay waa muy man muy keneen ak yam nag ah man awma problème ak benn adversaire si dëkk bi ku ma war a bëree damay bëree yow su làmb jeexee jaam tey tey bu ñu dajee maa yow mën ñu nekk gaayen soo gisee sax ma lay daw bu contrat bi amee mooy dama ragal mbër ak ngorom ko bu contrat amee waaye wi daawul loolu sax jege kon faa yow loolu. saa noo jàngee tey ji waaye neex rek ñu bokk ci làmb mu nekk làmb ci bëri ay xale yi war a wane seen bopp tey ñun ñëw comme mbër mi rek comme supporter comme amateur rek ñëw seetaan si làmb tey moom dara. léegi lu waral tey nga ñëw jàpp sa bopp ñëw toog VIP calme seetaan si làmb rek xoolal. écurie Ndogo si yëpp rek nii dañuy ñëw dagg ticket VIP bi ñëw toog seetaan làmb rek comme mbër comme comme supporter rek waaw. ah ñoo ngi koy ndokkee di ko ñaanal jàmm ki mooy roi des arènes ki mooy xoyantaan mooy sunu yaakaar ñu ngi koy ñaanal sunu borom may ko ndam kon saa topp nañu dem ci kaw ñu dugg ci biir xaaral dugg ne eh salaamaaleykum na ngeen def mun naa toog fii ah mun naa toog sëñ na nga. maa ngi fi. ah mu ma mun a lu tax nga yaay bi da ngaa bëri xaalis wala. du bëri xaalis ah. ah du bëri xaalis. léegi lu tax nga ñëw VIP. yow pour amateur la. ah amateur nga yow. damay dunda lamb moo tax. da ngay tëgg lamb moo da ngay dunda lamb. damay dunda lamb. yow yaay kan. Bakaw. yow foo toj yow foo toj. Bakaw. Bakaw nga toj Bakaw rek. yow gàmm bi nu nga toj Bakaw kese. fépp laa toj ki mooy Pimo. eh Pimo naa la. waaw seere naa la. da ñëw toog yow. waaw man lépp ni moo ko waral doon amateur bu mag. am nga ñun moom suñ passé aar bi amateur lépp moo doon combat dañu raw non moom neex na waaye waroon naa gën a a fees waroon naa gën a mën a because of li problème mooy léegi bu dee promotion la promotion bi doy na te amul ah, amul sponsor war na sigil waaw mbëri ñoo war na sigil gën a mobiliser seen fans yi ñu gën a ñëw waaye soo xoolee xam nga lii naa gën a fees gi doy na waar tamit. ndax amoon na coow ñu ko yóbbu stade ñu ne ko war a yóbbu. waaw loolu tamit ah, dëgg waaye moom moo xam lan moo tax bëgg a waaye ñëpp wax nañ ñëpp wax nañ ne léeg waru ko na yóbbu stade ngir stade dafa diis ak moom te stade dafa seer te lambay wan awa bu nekk ten ah, ten thousand dollars loolu dafa seer soo mënoon na ko yóbbu wasu wane wari nga am na business ba de business ba yow da ngaa tëjee a because the whole of you go on the level two fifty, level one fifty. loolu tam daa ñu ngi koy kaas tam nga fa réew mi toog dafa doy waar foogoo kàddu moo ko rëcc mënut a dellu ginnaaw moo tax ma indi ko ah ma ne foogoo kàddu moo ko rëcc mënut a dellu ginnaaw waaw kàddum daf ko jiitu kàddum daf ko jiitu moo tax mënu ko dellu ginnaaw waaye xam naa next time dina gën a fu moo teg tànkam bon despite loolu loolu noonu yëpp ak lu mën a xew soo xoolee mbër yi na sigil ngir léegi dafa sonal si bés bi de sonal promotion leen ba pare am na mbër yoo xam ne nii tey xëy na mosu ñu bëri stade wala muy ba pare isi na leen fii nii kon ñun ko war na sigal tamit isi fans mbër nag da war di mobiliser war di mobiliser fans xoolal nga gisee làmb ji tey neex na trop neex na ci yow ah? war doon a gën a neex war naa mën a gën a neex sax ñu ngi woon ñi ñu war a mën a ñu ngi sant yàlla bu da nga am jàmm da nga bu baax da nga ñëw lamb waaw la waaw waaw noo gisee euh, moo des mbooloo mi moo des waaye sant neex na trop waaw neex na trop ah ñoo ngi ko siyaar di ko ñaanal jàmm di ko jaajëfal sa sa dikkal xaaral ma ñëw ni salaamaaleykum may la ma toog waay nuyu naa leen yaa ngi am ah? ana ana police nga waaw waaw waaw police police ban États-Unis États-Unis waaye teg nga de West Coast West Coast ah. tur bi naka MC MC eh da nga ñëw VIP ni eh xam nga sama mbër moo fi ni Balla Balla ban bala Senior waaw moo tax nga toog yaay bi waaw waaw ñu ngi ci ko ñaanal waaw waaw noo gisee lamb bi ndam rek waaw lépp naay tey mbooloo mi waroon naa mën a gën a bëri de wala non non nii la mën a demee nii la mën a waral eh. lépp ko eh. ndam rek ndam rek ndeysaan lamba ba sa doxal a andi mbër wala da nga seetaante rek man Ah, man fii groupe Borom ah, ni nga Nikolaay laa bokk. ni nga Nikolaay nga bokk. yow yaay kan. man waaw abtaan bi yow koy jox. noo gisee làmb tey. ji alhamdulilah. neex na de ah. waaw làmb ji neex waaw kooku mënoon na gën a fees wala. waaw war naa gën mën a fees. ndax feesul. Ah, di moo seer wala lu mu demee. dana fees. dana fees. incha allah. looy digal ndaw nekk ci làmb ji waaw ndaw yi ñu ngi am ñu ngi ñu ngi ñu ngi góorgóorlu bu baax macha allah te làmb ji am na solo cosaan la aada la lu am solo la kontaan ci yéen sëñ Sarr ñoo ngi leen ndokkeel di la ñaanal jàmm saa fu ma jëm xaptaan la moo dëgg saa xaptaan bi dafa ma koy may xaptaan bi nee na dafa may may xaptaan bi xaaral ma jël ñi xale yi rafet nañ de xale yi ay xale yi ay wu leen eh, ku daw caméra dina ñëwee làmb ñi mun a caméra yow ñi mën a caméra wala ñi mun a caméra sëñ bi maa ngi lay nuyu nuyu naa la waaye nga am jàmm yaa ngi toog VIP calme xanaa daa mel ni borom xaalis nga yang yow mi non non non tuuti rek yow daa mel ni tekki nga de waaye dégg sant yàlla sant yàlla tur bi naka la Aliou Diba Aliou Diba Serekunda waaw waaw li sa taxawaay ci làmb ji gis nga xam nga rek ñëw rek pour bëggee rek ndax ñun ñëpp doomi Gambien leen ku xewal rek dañuy ñëw jàppale si ko surtout nag suñu mbër mi Noir ñoo bokk benn koñ mu nekk booy bu baax booy bu am gannaaw booy bu am respect daa su ñun moo tax bu xewlee foog ñu bàyyi lu ñuy def rek ñu oyisi ko loolu dong tax ñun ñeen ñi def dressement ñu oyisi ko wax dëgg yàlla loolu. noo gisee lambi tey. ah sant yàlla neex na trop neex na trop kontaan nañ trop. mu amoon coow ñu ne dañ ko war a yóbbu Serekunda West ñu ne fii. waaw fii moo gën bu ñëwee parce que fii mooy stade bi lamb ji lu mu yàgg yàgg fii la jëm kon nañ ko defee fii rek lépp jeex si jàmm loolu daal la ñuy ñaan jàmm am si dëkk bi. jërëjëf Diba jërëjëf jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal di ko ñaana jàmm. tur bi naka. Kawsu Kawsu lu waral VIP tey nga ñëw VIP toog calme. non place yi ménagère laa ñëw. ménagère la. waaw ah, ji daal neex na trop. waaw parce que su moom. des na wala desul. non des na moom am na su moom. boo boo déggee ma ne la neex na am na su ma mbër bu cee bëri moo tax. mooy fay quoi su ma néeg lay fanaan. waaw ji daf ma jaral lu nekk moo tax. waaw foo na fees wala déet. mënoon na gën a fees nit ñi waroon nañu gën a waaye xam nga rek ku nekk sa lamba noo ko tërale parce que lamba foog naa ne tey prix bu mu eega musu koo eega te tey ñu ngi dégg ay two fifty four hundred one fifty te one fifty musuñ koo dégg hundred lañ daan dégg te loolu tax na si biti liñ fa nekk moo ëpp li nekk si bi kon looy digal promoteur bi ah promoteur yi kañ soo waxee ñu ne ménagère yi day yokk a kase ñoom soo waxee ñu ne ménagère yi ñoo day yokk kase

ndeysaan diggante gas ak mesin, mesin Eumeu Sène sen càmmooy Gaas seen ndeyjoor Eumeu sen mo len jox ginnaaw Eumeu sen bu Gambia bala ngeen di fokk nak Eumeu sen bu mag la <laughs> wax bu leerul lëndëm diggante gas ak Eumeu sen juróom ñaari waxtu jot ba ci ñaar ak juróom ñaari fan ci atau nyari atum ñaari junne ñaar fukk ak benn di nuyu àddina wërngal képp di leen ñaanal jàmm di nuyu waa biir réew mi digënté Eumeu ak Gaz ci diggi gëw bi Suleyman Sar ndeysaan mang koy nuyu Suleyman Sar borom Turki mang koy ndokkel di ñaanal jamm ndeysaan ñi nga fi nga xam ne mooy stadium ba kaw lamb daal mooy lamb ama seen seen ndeyjoor Gaz seen atum ñaari junne ñaar fuk ak dan juróom-ñaari fan ci weeru novembre juróom-ñaari waxtu jot ba teg ñaar fukki simili ak juróom-benn lépp di juróom-ñaar wallaay ndeysaan juróom-ñaari fan juróom-ñaari waxtu si nuyu naa la suma pare naa la woo wallaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan diggante ama sen diggante ama sen ak Gass ndeysaan motax tax moo tax balaa lu ne ngay dégg ma ngay daanu way bala lamb lu ne ngay dégg way buñu duggé ci gëw ba wala buñu nekk ci biir gëw bi ngeen xamné lepp la man man fi rek motax mënu maa bëree bu fekkon bëré xulo kese la bu doon beure lew do kessa la ken dàqu mako way waaye digg géew bi digg gew bi xarit bi ñew yaay du ñew jabar du ñew doom du ñew yow rek ak jambar ji nga jàkkaarloot mu nga ba ko fa ñëm ndeysaan yene la ko nak lay <laughs> lay la mbeng pe ci ma saxal du nga mbeng diggante gas ak ma sen gaay da mel son nañu ndeysaan fi ku ñax njaxlab daan ndaxte ñom ñu son nañu ndaysan borom ngeen bu tukulóor li moy gas ngembam ji daf may fàttali ndeysaan at mi ma dan bëree ba gagne dala <laughs> ndaysan Ibrahima sañang lamb dal nekhul yow mi wax sax da ngay son waxuma la cameraman bi kon ki beure fu mu jëm ndaysan wa ma ngi di nuyu alaaji sam ak doomu ndeyam ndeysaan gaas ak ama seen gaas tàkkagul ama seen seenagul waaye gars yi dañoo sonn ndeysaan man bëre bu ñu ko joxee ma jékkali ko ndeysaan gars yi ku génnoon mu boole ma keneen ka ma daan ndeysaan ndeysaan gars yi sonn nañu fi nga teg baaxul fi nga teg baaxul Gas bi nga teg baaxul. Gas bi nga teg Gas nga Ah way Samba. wala ay way Paate ay way Samba amna ko ku koy bañ. nee na Samba la tuddu ndaysan diggante ama sen ak Gas. ndam gul ndam dikkagul. gul ko ndam gul ndam gul ndaysan ranga jeng ranga jeng ranga jeng ranga jeng ndaysan ñaari son nañu ñaari son nañu ama sen moñu jox ngeen jakarlo gas way lu ngeena xaar ci daanante gaay dañu sonu dañu ku nekk nga wax ku nekk ngi xalaat suñ ma fu ma jëm ku nekk ngi xalaat suñ ma lu may wax samay supporter ku nekk ngi xalaat la nga waxoon bala combat before combat and after combat français naan ko avant après combat il faut parler il faut regarder tous les sens ndeysaan selon qui a bon sinon y a rien las ne compte pas mais l'amour qui compte <laughs> déggoo samay français ndeysaan ndeysaan Ama and Gas ndeysaan we are continuing the fighting but nothing happened it now waaye sama anglais man moom Barack Obama jàppe fu ma <laughs> kanam baalal ma xam ne daara ja laa nekkoon ndeysaan anglais noonu la neex nga koy làkkee noo baax na bu doon ne yaa ngi yàq aaya yi ndeysaan noo ko dóoree baax na ay kamoon ngay dóor ay yees ay bigos man I hear what's the gun hey man? Yeah, I nigga now. I now nigga man. Ndeysaan. Ndeysaan di nuyu baax a baax waa Turki. Sama dëkk ba nuyu naa leen waaw waaw mënul ñàkk ndax daay nañu. Diggante gaz ak Eumeu Sène. Eumeu Sène moo ñu jox ginnaaw gaz ngeen jàkkaarloot. ndeysaan bi mooy second half muy deuxième mi juróom ñaari waxtu jot ba teg fanweeri minute ak ñett gaay yi dellusiwaat nañ ci géew bi duggaat nañu second half muy deuxième mi-temps ama seen ak gaz ndeysaan dara xewagul nday doom liggéeyu nday doom ñëwal ndeysaan jaas ma ngay boole bëre ak fecc jaas ma ngay bëre boole ko fecc illaa laay faal ndeysaan gaay seen dóor baaxul seen dóor baaxul seen dóor baaxul diggante Eumeu Sène la ilaha illallah da melni ni da melni daa da melni jeex da melni mel ni <laughs> jeex na Naisan na man ma yakam di ndaysan Eumeu ak akas mujjoon naa tàng waaye sedd ndaysan bëre ba tang na way dara Njaay ne lu jiwoo lu jiwoo jeexu jogo fa Ibrahima Sagne ngi koy nuyu sama cameraman mom day tok di kamera. di tëdd di caméra di taxaw di caméra car macha allah. ndeysaan kenn weerate ko gaa yaa ngi ci digg bi. dara xewagul. diggante gaz ak Eumeu Sène. ndeysaan. ndeysaan. gaz bu ol yu nu mbooloo. Eumeu Sène bu sukuta sukutan koolu. <laughs> bebi je kortnande tanante mana ko alba kayro to kayro drong wallahi ndeysaan ndeysaan <laughs> gaas ma ngay forcé gaas ma forcé gaas ma forcé mbaa combat du jeexee niil mbaa du dem match niil déedéet fooguma ko de ndax mëri la ñu waxoon mbeuri lañu waxon bañu sign contract lañu waxon ñu waxoon keroog Serekunda ñu ñu yàqaloon ne la ñu tokku ba ay trois de du très trois o'clock ak Sëriñ bakku bàkk Ibrahima toner bu Sëriñ moy bakku te bakkom da am solo ndaysan dama xamul nu wara def ak nuñ ko wara def ndaysan nu nu def ak nuñ ko wara def toner ndeysaan Tonnerre ay bàkku te mbër yaa ngi ci géew bi benn waay nee na Moussa ma ne ko naam mu ne ma am lii am laa ci alxuraan kese la am <laughs> ndeysaan diggante Eumeu Sène ak Gass ndam demagul ndam dikkagul ay jëw diggante Eumeu Sène ak a diggante Eumeu Sène ak Gaz waaye gars yi daal dafa mel ni dañuy waxtaan man xaw ma ndax dañoo déggoo kenn ku nekk ci defar la mujjee Ndeysaan. Ndeysaan. Tonnerre ay bàkk. Ama di bëri ak kaas booba. Ndeysaan. Modou Kara Gueye mi ngi ñaari mbari dañuy bëree wala dañuy tiaxan ñom dañuy jàppante rek taxaw dafa ñu dara li bu doon ay jigen sax jiana bu doon ay ñaw kat sax jiana bu doon ay commerçant sax jiana ndaysan ko ne ma jeex na ndeysaan special people. You're not yëngal yëngal wër wër tonnerre dafa yëngal wër tus dafa hey tus tonnerre tus dafa tus ko neem tonnerre tonnerre nda borom sa jaba yaa ma ko neem ramme armée ak big so waa sa jaba dañ la yaakaar tonnerre tout station laa <laughs> ilaha illallah laa ilaha illallah Eumeu Sène Eumeu Sène Eumeu am daan na gaas Eumeu Sène daan na gaas jël bu daw yaram ndeysaan Eumeu Sène daan na gaas gannaaw ba ñu bëree bëree bu yàgg ndeysaan lëngoo nañu ñoom ñaar ndeysaan li mooy làmb gaas nangu na dogalu suñu borom ginnaaw bu ko ama seen daane ndeysaan juróom-ñaari waxtu jot ba tey ñeent fukki ak juróom-ñett ndeysaan ndeysaan national movement mobilizer bu national people's party Amasen Faye Sukuta Amasen Faye Jogaadu kala ye këru dañoo paas bàyyi liggéey bi yëpp ngir man Amasen Faye waa Serekunda ñëpp maa leen di gërëm di gërëm ñu may ànd ñëpp su ma waay écrit ñëpp jàpp leen ci combat bi am lu tax combat bi yàgg waaw waxoon naa la combat bi foog xeex am parce que xeex bu amee foog làmb ji yàgg parce que boor yi woon nee naa la boor yi dama yàgg topp wallaay laazim grand dama daan dajee moom ci làmb mu saaga sama ndey na ma billahi wallahi la ma jëlal combat bi too ci nangamu ndeyam sama xol di toj ma ne ko waaye si soobee yàlla fu la muur anta jaarle lu raw foofu laa lay jaarle si kàttan suñu borom eh nee naa ko sukuda du yoonam na dal te su bëggee ba tey rek mu ngi ñu jox ko wóor na yàlla waaw kontaan naa xoolal lii xoolal lii ñii du ñu la kii de xamul woon nii xoolal lii oo combat bi amul wallaahi maa ngi ma naqari wallaahi. ndeysaan <laughs> <laughs> ndeysaan saa yang lamba neex ndeysaan xoo xale yi xale yi kontaan nañu xale yaa yuux ma ne ko xale yi kontaan nañu xale yaa ngi yuux ndeysaan ci lamb ndeysaan te muy walaay fara neex surtout bu sa ma ne ko fara neex rawatina bu sa mbër daane fara neex sañ ama seen bëree daan ama war a bëree waat waaw ko war a dajal yow Balla Senior Balla Senior loo ko indi tey waaw kon mën naa waajal yeneen combat rek ama seen a Balla Gaye moo fi amaat incha allah dóor mu daanu wala naka la lu lu laamu du laaj la waaye incha allah na wu jëm seedaal dama koy daan incha dama koy daan sa yàgg wala du yàgg non du yàgg bu laa ma jeexee bu laa ma jeexee danaa ñëwaat. incha allah ñëwal. final bi amoon Balla 3 drapeau Wally Seck. Ah. maa ngi bëraat ak Balla back to back am na ñu wax. incha allah yàqul dara <laughs> Bébé Balla ak Baye ci digg géew bi ndeysaan acca ci digg géew bi ndeysaan jàkkaarloo ba aka neexoon Bébé Balla seen ndeyjoor Baye Boy seen càmmoñ diggante Bébé Balla ak Baboy juróom-ñetti waxtu jot ba teg ñeent siminit juróom-ñaari fan ci weeru novembre atum ñaari junne ñaar fukk benn muy làmb joo xam ne kenn du ko fàtte ci même réew ndeysaan bu waxkat sonne xama fu bërekat yi jëm motax lamb dara yombul mané ko lamb dara ci neexul xana mbeur mi ñew daan lu mu son son keroog day kontaan dootul yëg ciono ngir ndam la ndeysaan waye mi mbeur mi ñew daan lu mu neex neex neex lamb ja lamb ja da koy wax ndeysaan ngir lamu ñak waaw <laughs> gaaw lii nar naa gaaw gaa yi dafa mel ni la ñu doon waxee lañ bëgg a jëf diggante ak Bébé Balla ndeysaan ma ngi koy kaawu laa ilaaha illallaah lii laa gis Bébé Balla ak Baboy Bébé Balla ak Baboy si biir géew bi Bébé Balla seen ndeyjoor Baboy seen càmmoñ wure wa dem ke nga xam dem na ne Sali jël di am wala day nil foogu mako ko de ndeysaan waa groupe sop Sénégal bi ma leen di ndokkel di leen ñaanal jàmm di leen xam lamb bo ci doono dara sax da ngay tit lamb bu la ci seeraan andi sax da ngay tit ndaysan nek lamb ki ci amul mbeur mo gëna sonn ndax ñaar bu ñu bëre sa yaram day daw ndaysan lu xew lan mo xew gaay atté nañu lan moo xew groupe sopp Sénégambie gars yi àtte nañu Ibrahima Silla honorable minister Balla dafa am lu mu takkoon ci bopp bi lool lañ ko wax mu tekki ko ndax àndut ak lamb ndeysaan Mbaye Babacar Mbaye Babacar nuyul ma waa Colobane ndeysaan gars yi nee nañ ñu ngi topp làmb ji Papa Baye Fall maa ngi koy ndokkeel Papa Baye Fall ndeysaan moom la code dama naayes moo tax gars yëpp dama laaj ko la code mais ne sama Baye Fall bi la ku mu code sa code baaxul <laughs> di ko nuyu Abdou Docta ndeysaan moom ay fajal samay jabar moom Abdou ndeysaan Abdou <laughs> Abdou borom relib ndeysaan wallaay tamuy dëgg waaye Istanbul ndeysaan groupe sopp Sénégambie bu ma sañoon ku nekk ma jaar sa waaye lamb je baaxoon nu mel lépp di xew ci Gambian Talents TV ndeysaan Gambian Talents lépp di leere atum ñaari junne ñaar fukk ak waaye newoon naa leen lamb yu ndaw la lamb ju mag jaa ngi ñëw diggante Adama Barrow la yaa Ousseynou Dabo Mama Kante Issa Fall Ndeysaan ak yeneen gaay Ndeysaan dama sëqër Ndeysaan di nuyu police xam ne bu làmb neexee ñooma diggante Baboy ak Babi Balla Babi Balla seen ndeyjoor Baboy seen càmmooy Babi Balla seen ndeyjoor Baboy seen càmmooy gaay ngi léewtoo waaye dara xewagul kenn brokkasagul ndax ñi ngi yóotu wante way ken dóoragul ndeysaan gars yi nag dañoo sawar ndax ñom sen sen sen sen combat sa jakarlo ba ni la meloon eh, bebe Balla jël nako bebe Balla jël nako la ilaha illallah ndaysan lengo nañu lengo nañu sama kafe ga sedd Hmm. waaye tey làmb yëpp neex mbër bu ñu daanee lëngante mbëri bu ñu daanee lëngante hmm. laa ilaha illallah ndeysaan gaa yi lëngante nañu ña ngay waxtaan gaa yi lëngante nañu ña ngay waxtaan saañang li daw na yaram <laughs> saañang li na yaram tey neex te làmb yëpp a neex gars yi dañuy daanante kottante waxtaanante waaw ndeysaan tey làmb yëpp a neex Bébé Balla daan na Baboy Baboy ñëw kotte ko ba tey ña ngay waxtaan waxtaanum ñaari minute gars jël nañu ko ñi xamlante ne làmb nii rek la laay lay la laa mbeng ba ci mu saxul dungu mbeng ndeysaan Débé Balla Débé Balla daan na daanu na <laughs> Débé na daanu na Débé Balla daan na daanu na Débé Balla daan na daanu na <laughs> ndeysaan lamba neex xam naa dafa takk yësi wala mu am mankaane yoo kay yoo kay mën nga may kere mu daan gannaaw ba nga xamee ne boo daanee da ngay daanu mënoon ngaa bàyyi kële daan la benn yoon ndeysaan ndeysaan dama wax ba mar dama wax ba mar ndeysaan Allah

am na nga lu wér man naa ko moom ñu gis ne combat neexoon na trop signature bi lépp a neexoon. waaye léegi gars ñu ngi lay bëgg a piraasi tout ça waaw gis nga de loolu mooy borom. waaw da ciy ñaax. waaw di sant yàlla suñu borom ko waa sant bi ndax dañ laa bëgg. non léegi. waaw noonu lay demee. tey ñoo ñëwee ci lamb waaw sant borom bu wér wér kontaan ko dina ak alxuraan maa ngi gërëm waa Thiaw bu baax waa Sundu amu seen fay gars dañoo sont bi parce que alxuraan kii gars yi xolof luñ jëlee ñii daawul lañ jëlee ndax combat bi amoo seen fay ba maam Serigne Fall sooku caar boobu moo la yow soo ñu affaire saa kayoo boo paal igri caayoo yëpp voilà maa ngi dugal dama ko day bàlle gis ne làmb joo ñëw confiance nga indi lan ma war a loolu waaw li nga liggéey daa war a rek loolu da nga demee man amuma stress ci làmb ndax ci xale ñu gis nga daan daa booy mu ñëw lëngale koote waaw def na lu nice def nañu ko grand final parce que alxuraan def na lu nice léegi loo koy digal waaw dama koy ñaanal jàmm may ko yàlla may ko combat bu doo ko waay jaabam yàlla defal ko ndam ndax la mag la koy digal mbiru lamb yi waaw di wax gars yi teel teel rek mm. lamb ndaw la te bu neex la mm. ñu lamb rek ñu na yor suñu métier mm. mais dafa nekk sport la dañoo waaw jëm ci kanam rek mbër daal daal waaw daal liggéey waaw rafet ci moom a neex Lion Noir ak Yaya Jammeh ñoo ngi ci biir géew bi juróom-ñetti waxtu jot ba teg ñaar fukki simili ak ñett diggante Lion Noir ak Yaya Jammeh Yaya Jammeh day dellusiwaat Gàmbi wala day continuer dem Lion day continuer ak Noiram. wala day dellu nekk blanc Lion Noir seen ndeyjoor Yaya Jammeh seen càmmooy Yaya Jammeh nag moom niroog Yaya Jammeh waaw Yaya Jammeh ak sunu Yaya Jammeh won benn lañu muy jëmm ji muy ñuulaay bi muy kar kanam bi combat bi narul yàgg di <laughs> narul yàgg narul yàgg narul yàgg ay waay Samba waa groupe Sopp Sénégal waay waay waay waay Samba Ndey diggante Yaya Jammeh ak les noirs combat bi narul yàgg combat bi narul yàgg waaye ku jum ñàkk ku yéex ñàkk ku teyul ñàkk ndeysaan juróom-ñetti waxtu jot ba teg ñaar fukki simili ak ñeent diggante les noirs ak Yaya Jammeh rëkkante nañu jàppante nañu ñimante nañu ndeysaan di nuyu képp boo xam ne yaa ngi baaxoo seetaan Gambian Talents TV waa bi ci réew jaar Sénégal ni wa Maroc wa Espagne wa italy wa France ay way Samba combat bi du yàgg ay way Samba combat bi neex na ba pare mbeur yi ñoo na par commentaire dara wul yag yaaya jamme mo ñu jox ginaaw ñu jàkkaarloog le noir ndaysan gaay nga ñe ngi beure ñe ngi wax ñëwee ngi caméra wallaay ndeysaan Léonor laay lay la laa <laughs> ndeysaan laay lay la laa ndeysaan gaynde ca diwaanu Mali Alaaji Mbooj ca diwaanu Mali maa ngi koy nuyu di nuyu Ama Cissé ndeysaan di nuyu F Tarawale moom itam diwaanu Mali maa koy ndokkel ndeysaan yéen saay xel day fat Modou Diouf ci diggaanu ci coor ñoo koy ndokkeel moom itam di ko ñaanal jàmm ndeysaan ah waaw waaw làmb ji naroon na gaaw waaye mbëri nag kenn ku nekk tey na ndax dañu doon natt seen doole a ah, waaye Samba Lion Noir fàqat na waaye dara dewul ndeysaan Lion Noir ak Yaya kalau San yaa ngi dëgmal Yaya ngi fa ya nak bu len dafa ndaysan la ilaha illallah la ilaha illallah ci bir beure nañu ba ya duggaal ci bir ñom ñaar ñep ngeemul xonku la ñu ndaysan yokku do li neex ndaysan mbeur bu jaxle wañ ay galajam man de dama baña wax way xamna ki dan man dama baña wax way xamna ki dan <laughs> ndaysan ndaysan wa ba nuyu na len ala stop man koy nuyu ndeysaan ku sama xel ñëw sama kanam ma nuyu la Pam Ndong nuyu naa ko wallaay ndeysaan ndeysaan Jamal maa nuyu moom Jamal Lion Noir Lion Noir boo tey ñàkk man téeméer naa wax kuy daan téeméer nekk sel tey téeméer nekk sel ba bu góor a ah, waay Samba déedéet ay waay Paate ay waay Samba am na ko way bañ nee na nee na baayam baayam moo tudd Samba ma ne ko ay waay Paate man de sama rakk la tudd di kon ma wax ay waay ay waay Alaaji Baabu wala ay waay Mbay Babacar <laughs> mbaa ma ne eh Ndakaaru Njaay wala eh Banjulu loolu sax laay wax mu noppal ma ndeysaan ndeysaan mbeur ya mujji nañoo tay kenn ku nek mu ngi sëgg di déglu romam ndaysan kenn ku nek mu nga sëglu sëgg di romam yene nga and Gambian talent TV ak sen doomu ndey musa jinn ma anda sama kamera Ibrahima sañang mom ndey kamera ba mu yàgg mu tëdd caméra ba mu yàgg mu tok del caméra ba mu mu jox taw yene say muy daw di kamera manako ndaysan lu way di wuyo da koy nuru olof njaay olof njaay neena ku manul bawul lu yak yo ma ki manul bawul ko lu yak du mom ndax day jëm xana kay ki ta bawul bu yakko moko tay ndax mom mokkal ba pare ah wax len rek wa groupe sopp sana Gambia ndaysan millionnaire man koy nuyu di nuyu touré borom kay la ñu papa Baye Fall man koy nuyu ndaysan neena len kumu sa kot baxul di nuyu Omar Diop Matar Diop séri ami man koy nuyu wallahi ndeysaan di nuyu baxa bax memba ana Baye sal Adama nuyu nako dekkendo ak la wallahi ndeysaan <laughs> Maliko Dias maa ngi koy nuyu nako ko place tof la Birane jass la Jabala Gandof la jassen jass di nuyu Ñasa ndeysaan ñom Baye Suwan babakar ñass nuyu na len ñaanal len jam Ibrahim Diop maa koy nuyu Ndaysan Ibrahim Diop maa koy nuyu Ibu Diop Sir Souway Baye Babacar ak di Baye Barham Ndaysan doomu ndey Mosek. sek mo sek seeri ndey lum moom ci nuyu naa ko ñaanal ko jàmm Ndaysan wallahi Ndaysan dekk ndo akla <laughs> di gis di nuyu ndaysan lu noir ma ngay ya, fecc di ndaysan ndeysaan joobi suwan di ñaanal bu baax baax sama doomu ndey iboy yalla yalla xare ko àjjana jegal koy ya, bakaram ci barki sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndaysan fa mu dem yalla na fi mu joge ci mom way yalla nako ko bi att ci dem ndaysan digante Lion Noir ak Yaya Jammeh Yaya Jammeh moom gannaaw Yaya Jammeh la tudd Yaya Jammeh wala bi Yaya Jammeh di xew waaye lu xew daal moom nuru na Yaya Jammeh moom moom daal moo Yaya Jammeh benn lañu xana lu weex rek moo ko manqué ndeysaan lu rek moo ko manqué Yaya Jammeh waaye daal moo Yaya Jammeh benn lañu day day ñib wala day continuer ginnaaw côté yàlla nag man loolu moo ma jaaxal. ndaysan xana bu daane ñep bo daane sa turandoo ñew bu la daane mu gëna tok ndaysan le Noir mom da am confiance le Noir da am confiance waaw mënu ñak foosaab jeexna premier mi-temps bi jeexna Ndeysaan première mi-temps bi jeex na gars yi bëree waat nañu lii lu doon lii li nga def wóorul lion noir li ngay def wóorul lion noir li ngay def wóorul bu kii boobee sa kaw rek am jël am ndam waaye waay mbër mi lay def lion li ngay def wóorul buñ la daane sa supporter mer la Lion li ngay def wourul buñ la daanee say supporter mer la ndax dañ nan yaa ko tey Lion war li ngay def wourul bo ñaké say supporter dañ la méré ndax dañ nan ya jaay combat bi wallahi ndeysaan lamb kenn duko ko lamb kenn duko xalaat sa bop xalaatal sa ginnaaw ndeysaan bo daana loy lay noy def supporter yi supporter yi indi woon yaakaar noo leen di def ndeysaan ki ngay bëre ëppoo dole doole ko taxaw kon bu saggan ah way samba astaghfirullah ay way ndakar njaay ak banjul njaay ndeysaan te ngeen ma liggéey ndeysaan te tengen ma bàyyi ma liggéey ndaysan sabina mang koy nuyu sabina ndaysan mangi ci làmb ji neewoon naa mangi tey kenn gis maa ci làmb ji maa stadium Mbakaw <laughs> sabina mang koy nuyu ndaysan di nuyu senegal be façon ñi nga xamne ne doomu ndey musa Jinne lan mo xew lan mo xew kan lañ yóbbu Ardo foosa bi jeex na. foosa bi na. ñaari xale diggante Lion Noir Yaya Jammeh. Sabina maa nuyu di ñaanal jàmm. Ah, di nuyu xale jigéen yi nga xam ne ndeysaan ñoo baaxoo di ñëw Sénégal bee façon sa Touba sànce ba wallaay ku ràcc sa kanam te mu dëll wallaay nuyu naa leen yéen ñëpp wallaay te dëgg.

gaa yi duggaan nañu ci géew bi diggante Lion Noir ak Yaya Jammeh gaa yi delsi nañu ci géew bi Lion Noir seen ndeyjoor Yaya Jammeh seen càmmooy Lion Noir seen ndeyjoor Yaya Jammeh seen càmmooy ndam demagul ndam dikkagul waaye am nañ yaakaar ne faaw am ku daan ndeysaan waaye ku daan looy lay ku daanu looy lay say mbokk moo tax coow lu mu bëri bëri ndeysaan ci biir biir géew bi ngeen di ndeysaan alba prastof la biran jas la jabala gandos kullu min nanti diamond science min kulli karima kullu min pokati mokati fine time ndeysaan sama doomu ndey waagaan maa ngi koy ko waagaanoo waagaan fay ndeysaan ndeysaan gaa ngay mu xiwante nag bu ngeen ko déggee mooy dóorante yéen ñi nga xam ne seen olof leerul ga éééé eh, Léonard ñàkk na Yaya Jammeh daan na Léonard Yaya Jammeh daan na Léonard daanu daan na ko daanu na <laughs> Léonard confiance moo ko daan <laughs> Lenoir confiance am moko dan Lenoir confiance am moko dan ndax te mom newona ko Lenoir bo daano say supporter dañ la ndax ndaxte lamb ak tiaxan lamb bul di xalaat sa dal xalaat ñu la Lenoir bëré na ndax lamb kenn duko ko foye mënoo bëre mu yàgg nga indi ni golo ndax ta amna lo xam gang la wallahi ndeysaan di bëre ba mu yàgg mu tëdd kon bo daano rek ya ko yéene sa bopp diggante Lion Noir ak yaaya jamé la kon yaaya jamé man na dal ci nim réew juróom ñett waxtu jot ba ak ñett juróom ñaari fan ci weeru atau nyari ñaari junne ñaar fukk ak benn Ligue Nicolas bu Gambia stadium Mbakaw ken dootu ko fàtt Ibrahima Sagnang nena naa leen lii làmbant la làmb ju mag ji mooy diggante Adama Barrow Loya Ousseynou Daabo Essa Mbaye Fall Mama Kanté Khalifa Sall wallaay foofu la làmb ji nekk muy yi nga xam ñoo war ndeysaan fan ci wala décembre décembre la man weer duma leen <laughs> ndaysan ya jamme danna na ndaysan na ya yaaya jàmme danna na na ma ngay wax kon de toma man na ñew ndaysan trondon de man na ñëpp ci ah yéen waa groupe Sopp Sénégal bi yaaya jàmme daan na daanu na yësi ya xoolal simbu gaynde ma ko xoolal simbu gaynde lu ma gëj simbu ndeysaan 1996 laa gëj a gis 1995 ci laa gëj a gis Sumbu Gaynde Njaay ndeysaan Yaaya Jàmme gannaaw ba mu daanee ba tey ma ngay wax xanaa lii turandoo moo ko sant <laughs> moom mi tuddee boppam Cheikh professeur docteur Alhaji Yahya Ejeje Jàmme Babeli Mansa <laughs> nee ko niru nga sa turandoo de ndeysaan may leen yaaya jàmme mu ñëw ci ndam li xanaa yaaya day ñib si kay xanaa sa trondo day ñëwaat <laughs> ñooxal na ko ko de saawaay yaaya dana ñib si nag gis nga bu mag bi day ñëwaat ay ñëw na ba pare saa mu ngi around léegi waaw difal daa man a ñëw waaw ñëw na man non xam rek tey moom fii xam tey tey du sa bis exact andi mbër noonu la demee nag daan de xanaa boo ñëwee daan <laughs> wa gis nga. am nga combat wala amako. non amaguma nag naa ne ma busy woon. Hmm. ma ne gars yi ma may tayam nag waaye am na. yow lay dox di busy mbër lu muy busy loolu làmb. xam nga mbër mu la nag. waaw loolu la sa métier. plomba. plomba yaa kon naa mel ne mbir yi sàgganatuñ de. <laughs> non da ngay nekk ci làmb ji nekk sa métier. waaw moo gën a wóor. moo gën a wóor. ndax combat yi day soriwante. waa gis nga. dëgg looy digal mbëri. ah ana ku nekk rek nga góorgóorlu sa bopp bàyyi xel train parce que fu mu bawul sa bopp hmm. waaw na loo mën a préparer nga def loolu waaw nu ngeen gisee léegi noonu dafa mel ni moom combat bi da ko xeeboon. Ah, waaw la sax dafa dafa ah. ganaar du dem ngente ganaar naka mbóot du dem ngente ganaar. mbóot du dem ngente ganaar lu waral loolu. am ah su demee fa lu mu faa jëlee. waaw. bañ a cop. léegi ana mbóot. parce que luy problème bi moom mbóot léegi noonu mooy mbóot am nga comme xale soo ko mayee hundred dalasi dafa fone foofu la xaalis yem mag nga may ko million mu teg ko si poosam toog waaw moo tax dañ ko bàyyi mu wax rek mm. moo tax ñu wax ko ne moo sëriñam yëpp duñ seen morom waa sëriñam waaw loo ci boole sëriñam yow parce que sëriñ bi du daf ko ngeem ba wane du daan waaw suñ daara boog yéen ko jàngal suñ daara la jàngee boog loo ah. ko jàngal newoon naa ko a ngi yóbbante de newoon naa ko daan kool la wax la ne la suma daara nga jàngee moom sëñ bi dan naa ko kool moom ñas ana sëñ bi ñas lañ koy wax ñas lañ koy wax moo ngeen mu Léonard na du daanu ñetti combat fen na ah, lii teg ko fen na ñas bii la tuub na ñas fen <laughs> déggal gaay ndesaan làmb daa neex ma ne ko ndeysaan làmb daa neex gaay yi nee nañu daan nañ mbir mi daan sëriñam nee nañu daan nañ mbër mi daan sëriñam moo tax sëriñ nañ di wax luñ xam sëriñ nañ di wax luñ xam ab sëriñ na waxe na kii daanu yàlla rek xam kii daan ak kii daanu wallaay ndesaan li lee yow poni la wala mbër la wala ab tubaab la saañang lee tubaab la wala poni wala mbër la mbër mi mbooyoona de

combat bi su gaawee rek duma am lu bëgg may na ko everything do mu dugg pour ñeme ma bu ma ñëwé si laa la bëri ak mom waaw so fancy ma ngi nuyu bu baax suma staff yi Youssou ma ngi nuyu bu baax ak mbër yi suma staff yi ko ji mëna a té te wax dëgg ngeen maa ngi leen nuyu bi baax billahi wa ta'ala aw ma seen fay waaw leen di ko ñaanal jàmm bu baax yalla mu am jàmm. léegi lu tax nga tuddee sa bopp Yaya waaw lo dafa yàgg du tey. bala muy dem lo bala bala me xam bala me xam man bu ma bu xalé billahi ma ngi tuddu Yaya Jammeh billahi wa kitabi wallahi maanaam da ngaa xool mu neex la nga tuddee ko sa bopp. waaw wax dëgg Lion Noir lu mu andi tey loo koy digal. Lion Noir rek dafa indi mu indi ko loo xamante ne ko sëriñam ñas mu gëmloo ko ko kuntandi leen rek su mu ne dina xar géej ñas mu ne Lion ma daan te na TV war ko ñas bu allah li nga wax dina la wax doo yàlla kuntandi leen fa gis kon waa Gambie ñun tamit am nañ kuntandi bi ku xam ne mu tudd ñas kuntandi la ko wax ne Lion ma daan ngi sant bu baax billahi wala combat yi bu ma saanee ba léegi mosuma dem géej maa ngi train piyaayu physique bu ma xam piyaayu laa ko amee kon waa piyaayu maa ngi nuyu bu baax a baax a baax suñu commissaire suñu commissaire gars yi maa ngi nuyu bu baax a baax kon yow ñes ne lée noir da lay daan yow gëmoo ko gëmuma ko billaa gëmuma ko yow da ngaa wéddi ñes wala da gëm sa bopp ñes dama ko wéddi parce que kanam yàlla man yàlla laa gëm bii lawate laay man doom la te dama koy dundee dëgg la Lion Noir waaw moom laa la. Eh, yow yow yow da ngaa niroo Eumeu Sène de yow da ngaa niroo Eumeu ay cousin lañ maag moom. da ay cousin lañ maag moom ah, ki doon bëreel suma rakk la suma xarit la yàgg naa am combat ma koy ñaanal di ci def lu mu man tey nag du bésam nde combat bi mu ba léegi dégg naa coow yu bëri waaye nangu ma ci wax ruus naa ko man nangu ma wax dara suma waay la suma lépp la. te tey la gën nekk suma bés bu amee bés naa ci def lu ma mun ndax man su ma jàppee rek jàpp naa te du ma mos a bàyyi. ñoo lay jaajëfal. jaaru digënte chat ak malam ñaani chat sen chamoy malam ñaani seen ndeyjoor ndeysaan digënte caat ak malam ñaani <laughs> diggante chat ak Malam Ñaani diggante chat ak Malam Ñaani Chat. ndaysan diggante chat ak Malam Ñaani diggante chat ak Malam Ñaani digente chat ak Malam Ñaani digente chat ak Malam Ñaani ndaysan chat dafa melni dafa dem Ardo da dem Jawara Chat dañ ko yobbu Ardo ndeysaan caat dañ ko yóbbu ardo ah. Ah. wala caat e diggante caat ak melam ñaani ndeysaan ñaari mbëri daa mel ni ku nekk def na ardo ba fof diggante chat ak malam ñaané bayi len ko mu dem béré bayi len ko mu dem béré ji diggante chat ak malam ñaané ndaysan diggante chat ak malam ñaané Gaya ngi ci bir geew bi juróom-ñetti waxtu jot ba teg juróom fukki minute ak ñeent déedéet juróom-ñeenti waxtu kay moo jot ndeke samay bët neexatul waaye groupe sopp di leen xamal ne sama telepon mu ngi fay bu ngeen ma déggatul làmb ji jeexul de malam ñaane ngi dox ci kawam malam ñaane ngi dox ci kawam yéexéexé du yàgg ndeysaan daan na ko ilaha illallah malam ñaane daan na caat jël bu gaaw Malam ñaani door na ko daan na ko kee ma ngay miir woy ndeysaan laa ilaha illallah ma ngay miir woo leen ambulance woo leen ambulance woo leen ambulance Malam ñaani door na caat caat dafa mel ni tànk bi dafa am problème caat dafa mel ni tànk bi dafa am problème da ko ëpp doole door ko daan ko dem na pour neexal ko way gaay yi nanguwuñu loolu dafa bok ci lambu loolu dafa bok ci làmb baye len ko ndaysan ndaysan ci làmb ndaysan juróom ñent waxtu jot ba tek ben si minute 9h 1 minute One past nine. Ndaisan Dokrus bir dakika. Grup sopp Sénégal bi nuyu naa leen fii ci Gambian TV diggante caat ag malam nyani. malam nyani door na caat daan na ko caat moom itam daan na wan na dafa mel ni mënul taxaw na ndaysan digenté am sen ak bala Senior digenté am sen ak bala Senior digenté am sen ak bala Senior he he he Diganti amma sen ak bala señor ku joom daanu la ilaha illallah ñu leen ci biir amma sen ak bala señor amma sen ak bala señor amma sen ak bala Senior juróom-ñeenti waxtu jot ba teg fukki simili ak juróom-ñett ngeen ànd ak Gambian TV di groupe sopp ngeen Sen Gambia maa ngi leen di ndokkal ba tey di leen ñaanal jàmm du ma leen bàyyi yoon diggante Eumeu Sène ak Balla senior Eumeu Sène nag bi ma ko laajee def na man ni def Balla rek koy def. waaye defagul dara ba tey juróom ñaari fan ci weeru novembre atum ñaari junne ñaar fukk ak benn ndeysaan muy tout twenty twenty one français naan ko deux mille vingt et laa ilaha illallah laa ilaha illallah ma ne lamb bi doy na lamb ma ne lamb ji doy na combat bu fi yemoon sax mu neex bu fi yemoon sax mu neex bu fi yemoon sax mu neex bu fi yemoon sax mu neex diggante Ama Sène ak Balla Senior combat bi li jot a xew Balla Senior moo ko bëree waaye ndam demagul ndam dikkagul Ama Sène <laughs> la ilaha <laughs> illallah la ilaha illallah andil ma ko andil ma ko andil ma ko la ilaha illallah saañang kay saañang ñëwal saañang dikkal la ilaha illallah bala señor bala señor dan na am sen jël bu reere de ko door de ko dan <laughs> juroom ñent waxtu jot ba tek ñaar fukki sa minute juroom ñaari fan ci weeru novembre atu ñaari jinné ñaar fukki ak ben ndaw bëree bu reey ndaw bëree bu reey bëree bi bëree bi reey na la ilaha illallah ndeysaan lamb nii rek la ama seen Balla Senior ndeysaan ndeysaan Balla Balla Senior Balla ana Balla Balla ñëwul Balla ñoo ngi lay xaar Balla Balla kaay génnal géew bi Balla géew la boole woon ak moom daan nga ñëwul <laughs> ndeysaan Gambian Talents lépp fi leere waaye lu fi leer ma rokkal ko waa groupe sopp Sénégal bi wala ndeysaan Gambian Talents TV lépp di leere waaye lu fi leer ma rokkos ko waa groupe sopp Sénégal bi ndeysaan Balla Balla Senior Balla Balla Senior Balla Balla Senior Balla Balla Senior Balla Balla Senior Balla Balla Senior Balla sama doomu ndey dama mere boo mere lépp ñaaw <laughs> yaa sama xarit man la man la man eh

jërëjëf Balla ñu ngi lay nuyu bàyyi ma sol yére yére waaw sol yére kay kay kay mënoo dem mënoo dem jërëjëf affaire bi yow la affaire bi yow la affaire bi yow la ginnaaw ñaari waajur combat bi maa ko jëlal suma bopp ba pare ma respecté ko bu baax a baax man lii bettuma de ndax lu ma liggéey la lu ma liggéey la li ma xëj fee dafa métti moo tax ma ñëw fi mu yomb bari suñu baama mbaaj xeex xeex bu jaar yoon ndax combat bi dafa am ñu may yen dafa am ñu may yen soo gisee tey ni ma ñëwee ak ni ma daan ñëwee sax dafa wute dafa wute waaw dañ dafa am lu ma doon jàngal moom laa doon sari tey billaahi lamb mu sama kanam nag incha allah man ñi ma war a bëre yéen xam nga leen xam nga leen waaw non du ma lim ndax man mbër yi aw ma kenn ku may lim waaye ñi ma war a bëre yéen xam nga leen bu baax waaw waaw baax bala bala bala bala Fala li nga bëree daa rëy tey. waaw dëgg la Fala. da ngaa xeex da ngaa dóor da ngaa bëree. dëgg la nii la war a demee gars yi. ak suñu bamba. confiance la wala man-man wala foo ko waaw lu ma mën la ak lu ma gëm xam nga. dama naan bëre yàlla di ma xañ. ma koy mën tey ma ñëw yàlla may ma ndam. daa mel ni la nga woon signature ba jëfee nga ko. ah say man li ma mos a wax dama koy def. ndeysaan. bu Yang yaa ngi si bi mm. gis nga lépp lu ma mos a wax dem def na dëgg waaw léegi day Balla gi mooy kon wala léegi da nga màgg rek Balla mais gars léegi léegi grand Balla la gars foo jëm ah fu ma jëm gars yi xam nañ ko ñu ma war a bëreel gars yi xam nañ ko bari sëñ Baabu jërëjëf ndeysaan kooku bébé Balla NDT nañ walaay ndeysaan te muy dëgg lu yàgg dëgg la Olof Njaay ko wax lu yàgg dëgg la waaye lu mënti xew daal yi jongama nañu man de bu samon jabar jël ndaysan sey ñu jat, lay ndokkel ndaysan juroom ñent waxtu jot ba tek fanwer simili ak ñent lig lay ndaysan digënde toner ak Robel cey sama cameraman ma ko cey sama cameraman ndeysaan faa ma jëleen waaw ma jës ma waaj waay digante toner ak Robel toner bu tuba sanca ba ak Robel bu jabang Jaabang Tonnerre seen càmmooy Robel seen ndeyjoor juróom-ñeenti waxtu jot ba tek teg fanweeri minute ak juróom ñet juróom-ñaari fan ci wéru novembre atum ñaari junni ñaar fukk ak benn ndeysaan bi nak moy special combat bi avant dernier ndaysan toner mo len jox ginnaaw Tonnerre moo leen jox gannaaw jàppante nañu jàppante nañu Tonnerre seen ndeyjoor Robel seen càmmooy oh ndeysaan Robel daan na Robel daan na Robel daan na Tonnerre ndeysaan ci ñaari minute ci la Robel daal Tonnerre Robel daan na Tonnerre waaye lamb nii la baaxoo wallaay ndeysaan yaay lamb ji yaay pii yaay pii Robel daan na Tonnerre noo gisee lamb ji waaw lamb ji moo xamoon nañ dina nekk lamb ji gaaw la ne dugal ñoom ñaar dañ soxla wante comme ni ko waxee woon Robel dafa duga euh, Sanjaba daan tête de file Sanjaba bi tey muy bëree muy Big Show champion Sénégal muy Big Show tey muy bëree ak euh, player Big Show di Tonnerre mu daanaat ko kon dafa mel dafa delloo buy sa mbomba euh. kon daal kii di Robel daan na ñaari mbën yoo xam ne Sanjaba lañ bàyyi ko waaw loolu dëgg la wax dëgg neex yàlla kon tey daal iraaru Sanjaba daal mel ni seen laa mu neexul waaw tey neexul ndaxte Ama bu Kësëriñ dañ ko ñaar dëkk yi ñoo bokk baay ma ne lamb la waaye xam naa ne daal robel lambam ubbeeku na waaw rova su xam ne diggante moom ak uh, jodaan fu mu jodaan daanoon na ko tey mu ñëw daanaat combat yu am solo combat yu am solo parce que tonnerre mu mujjee daan nii sax jodaan moo ko mujjee daan tey diggante moom ak jodaan combat du ko daa waaw tonnerre moom mu dam defaru waar xam ne si victoire la jóge woon tey mu ñëw am tafet laama rek yaa jërëjëf VIP ñoo ngi koy ndokkeel di ko ñaanal jàmm juróom-ñeenti waxtu jot ba teg ñeent fukki simili juróom-ñaari fan ci weeru novembre atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn ndeysaan léegi nag mu des li nga xam ne mooy daj gi ndeysaan léegi mu des daj muy last combat modas final combat yu nesan des ndeysaan sama caméraman baa ngi fecc ndeysaan ah day supporter ci kaw ndeysaan lamb bu sa mbër daane kontan. nga kontaan mu ne ko lamb bu sa mbër daane nga kontaan wallaay bu falas mbër alba la biran jas la jabala gandos la jaasen jaas kullu min nante daiman sinal min kulli karima kullin fokadi di yawan fayin tayin ay sama cameraman bi ibrahima sañang la ilaha illallah laa ilaha illallah ndeysaan lamba baaxoo nunu mel lamba baaxoo nunu mel lobis yow ma ko nay Modou Lo yow ma ko nay passeport kay sama gars yaa ngi noonu Dièrbédou Kara yal na sa jàmm yàgg na yàlla guddal fan yi coy waaw Baye Kara Baye Kara ñoo ngi koy ndokki li nga xam ne boo dajee ak moom rek jeex na diggante Viber digënte Baye Fa ak fa noir digënte Baye Fa ak fa noir digënte Baye Fa ak fa noir jamono ji nak ñongi ci daj dëpp gi ndaysan dafa melni nak la fa noir mo gëna ci forme ndaysan fukki waxtu jot ba ñet ci minute ndaysan ñom rek ñooñu mën a gaaw sigil ndax bëree bu no noppal ran kadi way bu yagge sonal ñooy sétan sonal supporter ndax kenn du xam foy fare way olof Njaay ne lu ay fekkewul wol neexol mané ko na fekk nga am jàmm ndaysan VIP VIP ndaysan VIP ñoo ngi ci daj dëpp gi waaw suñ ne woo ñu ñi ñoo jàngatee ñaari mbëri waaw gëj na naa gis nag si lambi Gambia waaw suñ fàtte su ma fàttale ko l'enfant noir fona twenty eighteen lañ ko mujjee gis diggante moom ak pulmonel mu daan ko jëli bu rëy waaw Vipa gëj nañ ko gis tamit moom a Arobas Independence Stadium mu daanoon Arobas tey nag for the first time ligue bi ko la indi leen grand Independence Stadium wax dëgg neex yàlla tey ku si daan dina la yóbbu beneen si beneen waaw léegi ñoom ñaar ci xoolin kan moo gën a nekk ci forme waaw in terms of forme moom laafaanuraay gëj nañ ko gis mu indi forme bii nii wax dëgg ne yàlla waaye nag suñ tàmpangante nag si nga doon xam kenn gën a liggéey waaw ndax doole moom day nëbbu waaw jërëjëf VIP nee na doole du nëbbu ma ne ko walaay wax nga dëgg doole du nëbbu doole bu ne tëll ñu xam borom génn na ndeysaan gaay faaw ngeen understand ne dama soj xawma dama toy mënul ñak moog dund gi and ndaysan olof njaay neena na wure wa dem na keng waxe mag dem dañ saali faaw jël am ma ne ko déedéet man na nil olof njaay yenn mu samp lo xam dañ ko wara sempi ndeysaan ndeysaan ñi fàttali ko ki nga xam ne mooy gaynde gaynde mi nga xam ne ku daan neexal làmb la jógee fi yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana waaye yàlla nañ ko yéex a fekk bi jaay Muhammad yàlla yàlla nangu ñaani xale ko àjjana ak aji jiiti yëpp amen laa faanaar bu bàññul sàkku xam-xam nekkati sa loxo ndeysaan lafa noir bu Banjul sàkku xam-xam xam-xam du doy bàyyi fa bu Balla famille ndeysaan yëkkati na loxo moom itam ndeysaan mën naa gaaw mën naa yàgg man bu làmb tolloo fii damay tiit te sama yoon nekku ci aha sama yoon a ngi ci ndax fekkee ma ci boole ndeysaan kulu min nante day man science min kuli carrément kulin fokkati moo ko deewal fine time ndeysaan diggante laafa noir ak baay ba baay ba nag Banjul seere ko naan ndeysaan VIP nga ne fan ak fan diggante la ndax laa fa la ko ngeema VIP mu nga xam ne waa Serekunda la mi Balla family kon dama mel la ak Banjul walaay ndeysaan wàcc ñoom seen lifin moom daabi la day nekka football sax daabi la day nekka bu neex la daal wala combat bu war a neex la daal incha allah kookoy VIP teg ko lamb bu bi kon mel na ni waa Serekunda ak waa Banjul ñooy bëree <laughs> du mën yomb capital agression fu la ci gënal kuma am jël ndaysan ndaysan ku nekk Thank you.

bu fekke naxoñ ñi ndaysan loolu moy bakku rew mi bis bi la sunu tagalo ak tuwab bi sama mam ci la xexon ba caay ji ndaysan ci la do tuwab bi bopp bi toj tubaab ñëw dara ci la tuwab ba daw Angleterre ndaysan ak yaram daw na yàq des ndaysan at mi wala bis bi lañu takale won ak tuwab bi bu ngeen ko degg rek seen yaram warna daw ndeysaan oh mbokki comme niñu ko waxé won ling Nicolai mi nga xamné mo teug tëgg lamb ji ci diwanu stadium Bakaw jurom ñaari fan ci wéru novembre atum ñaari june ñaar fuk ak ben ndaysan combat bu mag bi nak moy ñëw taxaw digënté la Lafa Noir ak Baye Ba arbitre ba taxaw na sen digënté rah bi joxañ na len tiaxan jeexna ndaysan la fa noor ma ngay jat baay ba ma ngay jat ndaysan comme nañ len ko digge won rek digge bor la wax taxlu bir fess waye digge boo ca namee bor fay rek mo ci war ndaysan yen rek yen ñu fi te yen ñu teere ñibbi ndaysan léegi tay ñu lem sunuy kakk bu jàmm ak jàmm amé rek légui tay ñu ñibi mbeur bu nango bëree noppal ñay sétan mbeur bu nango bëree yombalal caméraman yi mbër bu nango bëree yombalal journaliste lool français yi nan journaliste ndaysan ndaysan ba jor la noir Ndeysaan baay ba seen ndeyjoor Lavanois ak seen càmmooy diggante Banjul ak Serekunda Ndeysaan kenn ku nekka nga xalaat ay mbokkam kenn ku nekk di xalaat lan lay wax ay supporteram bu daanoo waaye loolu mbër bu koy xalaat rek Ndeysaan bëree mën naa yàgg baay ba dóor na waaye na mu dóoree baaxul dóor bi yoxom ndaysan ndeysaan la Lafa Noir ak bayiba arbitre bang lay wacc digg bi ref wo na len ci digg bi ref wo na len ci digg bi ndaysan yaram dawna na yax des di nuyu waa biti réew di leen ñaanal jàmm képp ku baaxoo seetaan Gambian Talents rek maa ngi leen ndokkel muy góor di jigéen mag ak ndaw di ñaanal moo di muy immigrants la ñu bëgg yàlla yàlla jox leen ko yéen da ngeen di bëre wala da ngeen di ah dañuy bëre mel pexe amagul ndeysaan pexe amagul diggante baay ba ak lava noir diggante Baye Ba ak la Fane Noir dara xewagul Baye Ba moo leen jox ginnaawam ngeen jàkkaarloog la Fane Noir ndeysaan ndeysaan laata saxar mi na tarande la bintu ay sa dur yaa tamte ne mat yaa baqat baqat yaa xatal ma noon yaa bëgg fonde li damay fàttali 1996 loolu français yi naan 1996 turki daan ko yuus dox san alta ndeysaan dëggal gaay la ñuy bàkk waaye xoolal gaay li ñuy bëree law la suba na ma làmmi ndeysaan waaye bu leen fàtte ne diggante xoyantaan ak Baye Mandiol loolu yàggatul muy combat boo xam ne ma nga waxal ne fépp ci Sénégal kan moo ko tëgg jàmm promotion gaa ngay dóorante de laa ilaaha illallaah gaa ngay dóorante man gëj naa gisee kaawa bu ndekete yoo am na ci ba tey. waaye daa mel ni làpp taag amu fi ndax ñaar ñëpp dóor nañ xanaa dóor daanu daa amatul mu daanu ndax sëriñ dañ koo mënatul a defal ndax ñaari mbëri ku nekk dóor na sa morom waaye kenn daanuwul sama maam ak ko ma noon dóor mu daanu moom sama maam xàccit mu daanu la daan def sama maam moom bu la ko defalaan boo xàccee rek moom jarul ngay dóor da ngay rek borom daano loolu moo gën waaye dóor borom doo ko daanu da koy gaañ gaa ngay fóonante mel ni ma ñii nag nar nañ ko yombalal nar nañ ñu ko yombalal daa mel ni nar nañ ko yombalal waaye bii te ma ko may gaay vidéo rek grand combat bi faaw ma may ko gaay vidéo ndeysaan man moo ma jaaxal ndeysaan grand combat baa ngi noonu la ilaha illallah fa noir daan ko la fa noir daan na ko fa noir daan na baay fa noir daan na baay ba la ilaha illallah neex na xale yu bëri nañ te xeex nañ waaw te joxe na su bëri wax dëgg neex yàlla rusloo wuñ rusloo wuñ amateur yi wax dëgg yàlla macha allah waaw am na solo di dox gars yi di di dégg VIP promotion waaw wala euh, mooy next event bi ñëwaat. six day nekk January after election bi ah. fekk lépp passé ñëpp delluwaat si jaama VIP promotion on second la war a def festival bi on six mooy big event am incha allah diggante Adidas ak Boy Niang kon léegi daal yaay yaay tëgg keneen loolu tëgg ci diggante waaw waaw ma naa daal maa fi sis after election incha allah fekk lépp jeex si jaama ak salaam rek incha waaw waaw jërëjëf ah jërëjëf VIP ñoo ngi koy ndokkeel di ko ñaanal jàmm ndeysaan loolu moo doon laaj combat bi ndeysaan mbokk yi diggante Lapa Noir ak Baye Ba moo doon grand combat bi waaye Lapa Noir mujj na am ndam ci ko Baye Ba dóor na ko caxabal ko mboot ko daan ko ci li nga xamné mo moo amoon ci stadium Bakaw juróom-ñaari fan ci wéru november atu ñaari jooni ak ñaar fuk ak ben kan mo tëgg lamb ji ñu ne Luc Nicolaï moo ko tëgg ndaysan mbokki mu doon lo xamné ne do dootu ko faati ci mim rew way lepp dañ ko and ak Gambian Talents TV di ñu ba ba wa bi rew ma bi rew bitim ak sama caméraman bi Ibrahima Sanjang man koy ndokal kaddu maa ngi la ñaanal jàmm mbokk yi ndeysaan xanaa kay dama ko war a yóbbu rek dégg nga loolu ndeysaan ñëwal ndeysaan tey ma woo la ndeysaan ndeysaan mënoo ñàkk ndeysaan ay ndeysaan lii mooy làmb ji Thank you. jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fi si biir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ci ñetti fuk ak ñent deka si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën ci jotum xaalis bi nga xamne kenn du ko laam saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mëna bind ci si suñ app bi di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mëna bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. ci Afrika. billaay ñun ñoo meeti. den toog la gëmloo suñ boppa dara te kenn mënut laa wax fu mu jógee ñu bëri ñu ne péngu coronavirus bi dafay tax am doom te amuñ ci benn firme kon fexe leen dem péngu ji pour aar seen boppa ak askan bi

of people them around the world don't get this vaccine here. Coronavirus not something we did. It not sabi race, it not sabi gender, it not sabi tribe. It don't kill thousands of Africans around the world because it not been get cure. But the good news now, it don't get vaccine. Coronavirus not all man in business. So tell you people that where you like. On a member say, we all know say, till we all learn safe.